mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abone bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Thiénaba TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di ziar kilifa diine yi waaye nuyo booba dañ koy teg suñu loxo sëriñ suñu loxo maam muy sëriñ Baye Assane Seck Seck Mori ñu koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér waaye di ziar monsieur le maire Talla ak képp kuy kilifa rek bu yeewoo fii ci Thiénaba tey la ñu leen di nuyooyu fii ci Ngent nekk fii ci diwaanu Thiès waaye xam naa dañuy bàyyi rek Baye Ndiouga mu daal di xamale lan moo xew fii tey ci Ngent ak euh, lan nañ fi fas yéene def Baye Ndiouga ziar nañu la jox la sa wàccuwaay ñu bàyyi la rek nga fàttali mbokki téléspectateurs yi tey lan moo euh, waral taxawaay bi tey. Euh, jërëjëf euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di jaar ci yow di nuyu téléspectateur yu Thiénaba TV yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di nuyu directeur général Alpha Ibrahima Sarr ak équipe yi koy jàppale yëpp. Euh, événement tay bi moo di Alxayria di ONG boobu nga xam ni waa kër Serigne Abba Sall ñoom ñoo ko yore jiite ko di def social ci réew mi ak bitim réew. Euh, tey nag ñoo dugg si Thiès euh, beneen duggiin ndax daan nañ def social ci région bi daan nañ ko def euh, dugg ci gox-goxaan yi waaye tey nag dañoo samp bëgg samp infrastructure dañuy faral def bu ñu demee ci ab gox la ñuy njëkk a def mooy dimbali nit ñi ci fu ñuy jullee seen seen i waxtu tabaxal leen jumaa ju ju yaatu joo xam ne nit ñu bari daanu fa mën a teew jaamu fa seen borom Euh, la ca toppit ñu tabaxal leen école pour nit ñi euh, seen i doom jàng ci seen seen diine ak yeneen ak yeneen loolu lañ def si cees euh, tey fii ñu taxaw di ZAC Nord bu bu Ngent ci cees alxayri li mu fi bëgg a taxawal mooy benn complexe complexe bi nag day am jumaa bu mag ànd ak jàkk jigéen ak li aju ci jumaa yëpp morgue ak jàppukaay ak yu ni demee yooyu yëpp incha allah moom tegu xeeru juma woo sax lañuy njëkkee tey bu buñ ci yeggalee danoon fi euh, tabax euh, boulangerie euh, boulangerie sociale ni ko alxayri defee boo xam ni wax dëgg yàlla lim ci jubloot mooy jàppale nit ñi rek ndax ku ne xam ne ndekki yombul loolu tam daañ ko fi samp danañ fi samp orphelinat orphelinat mooy daara jirim ñi xam ne dañoo ñàkk seen i waajur doon ay tuut tànk ñu jàng fi alxuraanul karim ba mokkal ka duñu fay dara loolu tam daana ko fi samp dinañ fi sampit li nga xam ni moom moo di groupe scolaire muy école franco arabe boo xam ni ànd ak alxuraan ji xale bi jàng fee day mën a jàngaale français ak yeneen yàq làkk yi ci aju ak it alimentation bu mag boo xam ni bëgg nañ ko fa def ndax eh, fii wéet na ñi ngi ñuy wax sax ni jakarta yi ñooy dem ca dëkk ba di jëndal nit ñi li ñuy soxla di leen ko indil kon xam nga loolu dund gu metti la loolu yëpp nag daan ci ànd ak ñoom ak lépp loo xam ne rek xaj na ci place bi ndax fii ñu taxaw soxna si ba fële ca tali ba loolu yëpp macha allah alxayriya ak moomeelam la Euh, kon loolu yëpp la ci fas yéene def bala may tëj rango rek ma wax ni alxayri rek bu duggee ci gox euh, dafay fekk pàkk boo xam ni dañ koy jaay mu ni jaay leen ma bu ko jëndee tabax ca la muy tabax ba pare jox waa gox ba dem yoonam waaye du fekk mukk euh, place boo xam ne am na coow wala place boo xam ni moomeelu jàmbur la mu tabax fa su boobaa su ëllëgee borom ni comme sama place la dëgg-dëgg maa maamoom li ñu fi def loolu yëpp tam ñu ngi koy bàyyi xel soxna si jërëjëf euh, Papa Ndiouga ci leeral yu am solo yooyu kon xam naa yaatal bi rek léegi léegi léegi lay doon incha allah ci bâche bi incha allah. labbayk allahumma labbayk AIVLT voyage ku ne dégg na AIVLT voyage voyager leen si confort dans la quiétude nga bëgg a dem umra ji dañu lay taxawu gunge la nga bëgg dem Maroc ñu taxawu la ba pare ci njàppandaluk marocain bu loisir du tourisme culturel bi El Hadji Niasse ñi ngi jiite dina leen yombalal seeni déplacement si biir Maroc ci ay auto yu yomb bien climatisé ngeen dem Fès dem Rabat Casablanca ak Marrakech en Europe naka noonu nga bëgg a dem Dubaï mbaa fépp foo bëgg a dem si biti réew contactel AIVLT voyage AIVLT voyage yamul foofu dina def ay colonies de vacances des voyages de groupe ak yeneen ak yeneen l'agence internationale de vacances de loisirs du tourisme dirigée par El Hadji Ngassi dina leen dalal ci ay hôtel VIP 5 étoiles location de voiture tekki di càmmonteeg mesure barrières yi jokkoo AIVLT voyage ci 77 600

laa sharika lak labbayka allahumma cene ba ñëwee alquran rëy soobu leen ci bandi lay soobu leen ci bandi lay ñoo ngi sant yàlla kay ñoo ngi sant yàlla kay moonu moom te am na fay moonu moom te am na fay jàng alquran rëy jàng alquran soobu leen ci bandi lay soobu leen ci bandi lay ñoo ngi sant yàlla kay ñoo ngi sant yàlla kay moolu moom te am na fay moolu moom te am na fay jàng alquran rëy jàng alquran rëy soobu leen ci bandi lay soobu leen ci bandi lay mag mu doon ci reccu tey jàng leen te bàyyi lay jàng leen te bàyyi soobayude kawla bayñaƴo neɗɗuɗoɗiɗa killente bayirayi sookoyude dowla fay noon yangi annduday songudaɗa baɗa fay noon yangi annduday songudaɗa baɗa fay noon yaa ngi ànd tey. noon yaa ngi ànd tey. songu daara bëgg a fay. songu daara bëgg a fay. leeru yàlla ji ñu may. leeru yàlla ji ñu may. ay teraanga lay ko may. ay teraanga lay ko may. leeru yàlla ji ñu may. leeru yàlla ji ñu may. nga jóg taxaw teerul sunu doom yi nga xam ne. gis nañ ne ñoom ñëpp yéene seeni waajur. jërë ngeen jëf kon waa assistance bi waaye ci teewaayu waa Alxayriya sunu kilifa imam Serigne Mayoro Sall bu Serigne Abbas moom ma retrouvé ko ba Louga ñëw na mi ngi nii toog moom it bu Serigne Abbas ma nga jóge ko moom itam ba Louga mi ngi bu yaa doon awoon ci moom coordonnateur liggéey bi moom it mi ngi nii mag mu toog di rëccu tey mag mu toog di rëccu tey ñàkk jàng moo la rey ñàkk jàng moo la rey mag mu toog di rëccu tey mag mu toog di rëccu tey ñàkk jàng moo la rey ñàkk jàng moo la rey jàngi leen te bàyyi lay jàngi leen te bàyyi lay soo xëyul kenn du la fay soo xëyul kenn du la fay jàngi leen te bàyyi lay you can do the fight. Sooba you daara bëgg fay. Songu daara bëgg fay. Noon yaa ngi ànd tey. Noon yaa ngi nu may. Leeru yàlla ji nan ko bañ. الخيرية تخنتين الخيرية تخنتين الخيرية تخنتين الخيرية تخنتين جرم يكو جكتين جرم يكو جكتين الخيرية تخنتين الخيرية تخنتين جرم يكو جكتين جرم يكو جكتين نوغي نيان بور يالا فاي نوغي نيان بور يالا فاي نوغي نيان بور يالا فاي jëf ju rëy ji dootul fay. jëf ju rëy ji dootul fay. ñoo ngi ñaan Buur Yàlla fay. ñoo ngi ñaan Buur Yàlla fay. jëf ju rëy ji dootul fay. jëf ju rëy ji dootul fay. Yamin. macha allah Oustaz Mouhamed Mbow. Cemil! Maşallah. Xale yi déglu leen de. Taslim. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تبوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي لدقا الكبير حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أيوة في جنة خلد مقعده يمين قربك أحمد ملتحقا يمين من كان له خلق حسن يمين الأقرب في جنة في كان له خلق حسن تكون الأقرب في الرفقاء أضفيت على الحسن الأبقى فالوالد يحوي رزقا قد خيت على الحسن العبقا فالأرض تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي رزقا والعين يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق في جنة خلد مقعده في قربك أحمد منتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرمق من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرمق الأقرب في الرفقاء سيكون الأقرب في الرفقاء اعتدال أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها السدد وأشار المؤيد وأنت يا محمد بدر الهدى الإنساني يا محمد بدر الهدى الإنساني يا أيها الأوان من كل نشر ضاي يا أيها النبي الكوكب دري أنت في الأكوان من كل نشر ضايع يا أيها النبي الكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي قالت أقمار دياجي قل لأرباب الغرام مولاه محمد في أمان وسلام قال أقمار البيادي كل أرباب الغرام كل من يعشى محمد في أمان وسلام وحبيبي وابنته وردتان كالدهن ودموع العين تجري مثلها الطال الغمام قال أقمار البيادي قل لأرباب الغرام كل من يعشى محمد في أمان وسلام كنت أمضي في طريقي مسرعا بين زحام أذكر الله وأودي سيد الخلق سلاقا قال أقمار البيادي قل ضاقت الركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطايا أتى تراما اضطراب واهتزاقا قال أقمار في أمان وسلام كل من يخشى محمد في أمان وسلام اعتدال jërëjëf Oustaz Mouhamad imam Mouhamad Salsabil mi nga xam ni moom la kilifa alxayriya jël jox. kalé, nañu way si yonen bi moom mi gën si mbindeef yi yow yaay moom jaay na dundam yëpp dundam yëpp ak bépp bànneexa bànneexa ngir jëmi alxuraan alxuraan si doomi julliti boole ko mu dëkk si muñ si muñ di wakiilu si yàlla yàlla amuñu faaya faaya suware ñu di ko ñaana ñaana Allah jàngal kilifa yi wayaa xaw mi ñi ñàkk waajuru ngir jàngal leen alxuraanul karim mais taxaw boole ceeg ñoom ñaar ñëpp ñu ngi def C1 ñu ngi jàngi français waaye seen alxuraan du tardé mukk incha allah kon ngeen ñaanal leen ñaanal ONG alxayriya boo waa kër Serigne Abbas Sall bi nga xam ne ñoom ñoo taxawal liggéey bu rëy bi euh, kon mbokk yi xarit yi ñu jëm ci war a tàmbali nag li nga xam ne moom moo di waxtaan wi waaye ci njàlbeenu lool rek ngeen may nu ñoo nuyoole leen ak sang yu baax yi nga xam ni ñoo leen indil teraanga ju rëy jii waaye tatagal ñenn ci gan ñu tedd ñi fi teew li ci des lu ci xat ci waxtu wi rek ñu dugal ko ci ndax ku ne xam na ni euh, jamono xaw naa xat surtout nag samedi ak dimanche nga xam ne ci la kilifa yi dox seen soxla yépp kon ku la ci may fukki minute may na ci lu bari kon sunu jotaayu tey bokk na ci li ko taaral moo di waa kër Serigne Abbas Sall radiyallahu taala anhu ñi nga xam ni ñoo amal lii di ONG alxayriya di ONG boo xam ni bokk na ci ay jëfam seet fu jullit yi soxlaa jumaa ñu tabaxal leen ko ji ñu war a teg xeer njëkk wi incha allahu dana nekk deux cent quarantième mosquée boo xam ni tabax nañ ko ci Sénégal ak ci sous-région bi mbokk yi defe naa ne loolu góor gu mat sëkk la yàlla na ko yàlla li yàlla yeggale ko euh, li fi war a am lépp incha allah waxtaan wi dana ko feeñal lii war a ànd ak jumaa di gunge ko ngir doomi jullit ñi maanaam formation bu baax waaye seen social lépp jóge ko ci seen biir waa kër Serigne Abbas googu tudd léegi nag te xalifa bi di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñu di ko ñaanal yal na yàlla gën ko dëgëral oyofal yan bi ñuy wéyal di ñaanal docteur Serigne Mansour Magam bi mu fi wóotu yàlla na dëkk aljanna bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi sallam Serigne Cheikh Ahmed moomu bu dul woon ay xate-xate mooy ñëw jiite suñu jataayu tey waaye ñii fi toog ñooy moom muy ñoom euh, ci ñoom nag ka ca bopp ba mooy imam Serigne Abdallah sàll bu Serigne Abbas Sall mi ngi nii toog yegg si ne léegi teewal boppam kon teewal ki nga xam moom moo di magam di Serigne Cheikh Al Khalifa ci jataay bi imam Serigne Pape Mayoro Sall bu moom it di imaam bu mag ba ca jumaa ju mag ja ca kër Serigne Abbas moom it mi ngi nii toog Euh, imam bokk na ci délégation Serigne Cheikh boobu nga xam ni Cheikh Abdallah moom moo ko jiite bokk na ci ba tey Serigne Mouhamadul Amin Sall ñu xam ko lool waaye xamum njàngaleem ci internet bi muy koo xam ni ku sawar ci joxe xam-xam la di doomu Serigne Abbas mi ngi nii toog di kenn tam moom ci liggéey bi ànd na ci délégation Serigne Cheikh boobu mi ngi nii waaye fekk si nañu seen rakk Serigne Abdoul Fattah Sall mi nga xam ni mooy vice président bu ONG Al boole ci di coordonnateur wu activité yi muy seen rakk nekkal leen fépp macha allah moom it mi ngi nii dend ak ñoom moom moo jiitee délégation alxayri bi jóge Dakar ñëw fekk si ay magam ñu war a nag amal jëf jure ji ñuy amal tey ji délégation alxayri boobu yaatu na torop lu ci xat ci temps bi daana ko ci dugal incha allah waaye fekk nañ fi ay kilifa euh, ma njëkkee rek ci Serigne euh, Ismaïla Soumaré bii toog nga xam ni moo jiitee Euh, coopérative de l'habitat des agents de l'administration de la région de Thiès ñuy nit ñu am fayda ñoo xam ne ñu ngi liggéey naam ci nguur gi waaye ñu ngi bàyyi xel seen borom ci ak àndandoo ci ak jëflante bu rafet mais ci taxawu seen njaboot ngir ëllëg ba pàkk bii ñu taxaw ci seen pàggu la jóge te loolu dina leer ci ay kàddoom ndax mooy jël kàddu léegi ak it nu ñu lëkkaloog alxayri ba war a def liggéey bi loolu dana leer léegi kon monsieur Soumaré ñu ngi lay dalal délégation bi nga ñëpp rek ma jéggalu lim bi ndax waxtu yi moo dem daanu ci dellusiwaat bu xajee ci temps bi euh, waaye ñuy dalal itam euh, euh, Serigne Abdoul Fattah say wëllëre di wëllëre waa kër Serigne Abbas yëpp di El Presta mi ngi nii toog El Hadji Doudou Ndiaye kenn la ci njabootu Serigne Abbas loolu moom defe naa ne jarul commentaire bu bari mi ngi nii toog macha allah di kuy liggéeyu liggéey bu rafet dëkkee Thiès di kilifa nee na yëf yi sama yëfa maa koy taxawul sans bopp kon mi ngi nii toog. El Hadj Babacar Diouf gën a siiwe ci Mbaye saint nga xam ne mooy borom hôtel résidence Lat Dior moom it mi ngi nii toog xam na ne liggéey bi moo ko moom mu ni lu alxayree jëmal Thiès gan ña moom bu ñu waree fanaan maa leen di dalloo kon nag maa leen war a teeru mi ngi nii toog ci euh, jataay bi dana ànd ak ñun liggéey bi euh, Serigne Bachir Dia euh, waa kosako ak El Hadj Abdoul Aziz mbay moom sax dana jël kàddu seen tur imam Cheikh Guèye yéen ñëpp yéen a ngi fi El Hadj Mansour Mbaye boo sunu baay Baye Ndiassé mbay mi ngi ni toog moom it di kilifa waaye nag ki leen teeru si fii tey ci Thiès di seen rakk di seen njaboot di sëtu Serigne Thiénaba Serigne Ahmadou Ndak Seck mooy Serigne As Seck borom ndigal mi ngi ni toog mooy président de la fédération des daïra jeunes Tidiane de Thiénaba li mu ëmb lépp bi ma ko waxee bis bi dani ma waa kër Serigne Abbas sama waa këra ndax Serigne Abbas sama bàyyi la mbeng boo ma ko waxuloon sax ma dégg ko ci rajo rek danaa ñëw mi ngi nii toog defe naa ne ci ñi fi njëkk la bokk moom it am taxawaay trop fii ci Thiès kon loolu defe naan ne lu am solo la kon sëriñ Yaas ñi ngi lay dalal ci sa mbokki bopp ndax li nga ma ci wax ci suuf loolu moom defe naa du waxi kaw waaye lépp rek mag ña ñoo ko liggéey yal na yàlla wéy lépp kon su ko defee dañuy am mbégte nag euh, wax faatu bint soow Sow Seyda ma dalal gi rafet na teeru bi rafet na ca ganñaak ñay mool ak ñay fàkk ak ñi fi ñëw di xool moom bala mu am jàmm nga dugg ci daara ji mu fexe daal ba doo déranger njàng mi rek mu dugal la ci ruq defal la teraanga ba boo génnee fi coono bi nga dikkee ak bi ngay demee dootoo ko yëg kon Seyda Fatima yal na yàlla fay la incha allah dëkkandoo gi dana rafet daanu àndandoo lëkkandoo gi dana rafet sa kër waa waa maam Serigne Abbas moom eh, yaakaar naa mën nañu nit waaw yal na yàlla moytuñ lépp kon jox ko monsieur Soumaré mi nga xam ne moo jiite coopérative boobu ma tudd léegi mu yëkkati ay kàddoom gën a leeral lu ma waxul ci place bi ak noonu fas yéene liggéeyee ñu jàll ci leneen monsieur Soumaré bismillah fonctionnaire ba léegi ministère de l'économie et des finances di liggéeyee direction général du budget dama bëggoon balaa ñuy tàmbali ñu defal tuuti ñaan ci ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci coopérative bi yàlla may leen tey ñu jóge fi ma ci fàggu ñaari nit yi nga xam ne seen pas-pas ak seen taxawaay jotoon na cee rafet kenn ki muy ku mag ku Cees xam nekkoon fi gouverneur de région ñu koy woowee sa Camara mu nekk nit ku mag nit ku am fayda nga xam ne presque bi ñuy sos coopérative bi moom moom ma ko dénkoon ne ma da koy sos te boo ko sosee dinga ci dimbali ay nit loolu moo doon kàddoom keneen ki nga xam ne war nañ ko ñaanal mooy sunu benn jigéen bu ñuy wax Ndeye Seye moo nekkoon secrétaire généralu coopérative bi bi mu génnee àdduna ak léegi daanaka matul 10 jours bu fekkoon ne tey jii yàlla deful woon li gën xam naa ne tey jii dina fi toog mën na am njabootam ñu ngi fi toog en tout cas benn collègue am bu ñuy wax madame Fall ma nga ne leen toog ñoo ñu daal bëggoon naa ñu assemblée bi ñu defal leen ñaan sànni leen ay dog fa ñu tëdd ci àllaaxira yàlla na leen yàlla yërëm coopérative bi nag biñ koy créé ñu ngi ko créé en 2003 booba temps ñu ngi ci li ñuy wax les chantiers de Thiès bari na ay coopératives yi fi nekk bii nag moom moo tudd administration de Thiès daanaka presque ñun yàlla. def na ñoo ci ëpp ay parcelles dafa naa li ma fi joxe ci ay parcelles je crois que jege na 500 waaw ay ministre am nañ ci mais li ci gën a li ma ci gënoon a euh, fàggul wala li ma ci gënoon a ëppal intérêt mooy ñëpp ñi nga xam ne seen loxol joto seen ginnaaw ñu mënul cee am ay jàmm bañ koo defaree ci biir plan bi coopérative bi nag. site bii ngeen nekk ci titre foncier 46 56 la bokk maanaam même titre foncier la bi may def démarche yi ak waa ONG bi dama leen ne man nitu administration la fonctionnaire laa lépp lu ñuy def dañ koy def ci ay këyit ma dem seeti directeur général de l'urbanisme Omar Sow mu yombalal ma affaire bi signé ma lettre de non objection ma jaar fi ma war a jaar yépp ba ñu déposé këyit yi waa ONG bi sax seen yaram tàngoon na trop fata bés bu ne mu may soññ dañoo bëgg a commencé mool ma ne leen may leen ñu rek parce que nitu administration moom te coopérative ba administration la tudd dañ koy teg ci procédure état rek lépp lu ci état wax rek loolu la ñuy def kon ci côté boobu ñu ngi ñaan yàlla processus de euh, pérennisation wu autorisation bi war a mën a continuer te am nañ ci yaakaar trop parce que déposé nañu kayit yi ñu war a déposé yëpp ñu ngi instruire dossier bi loolu terewul war nañoo war a mën a continuer beneen mbir bi nga xam ne moo ci nekk nga xam ne hasard aussi amul soxna Fat Sow mii nga xam ne moom moo fi sanc daara ji te dëkk fii jàkkaarloo ak parce que boo xoolee sit bi ñun rek ñoo fi am fu ñuy wax mosquée bi vendredi moom daanaka presque dama ko repêché ci coopérative bi moo tax hasard amul daal ndax ma woo ne ma bokkoon naa et cetera et cetera ma ne ko yow mataloo et cetera ba nar a effacé ba mu yàgg tuuti ma woowaat ko téléphone ne ko dellul trésor nga versé nangam bi mu versé ma jox ko numéro bi ma ko joxee numéro bi ndekete moom moo waroon a jàkkaarloo ak mosquée du bi nga xam ne fi ngeen nekk ni moo tax mu sanc fi donc principe boobu nga xam ne am na antériorité moom mu jiitu fii di fi commencé doxal diine nekk numéro 241 xaw ma 242 waroon a jàkkaarloo ak mosquée bi loolu aussi mbiru yàlla la donc sama partenariat nag ak waa ONG Al Khayra rencontre la rek li tubaab di wax naan il n'y a pas de hasard dans une rencontre une rencontre donne lieu toujours à quelque chose et voilà la chose bi ma leen dajeek ñoom ñu nekk ay nit ñu farlu ñu wax ma ne dañ fay bëgg kii ñu ñëw visiter mbir mi gaaw ba tey jii ñu war a mën a def lu mel ni ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan projet bii nga xam ne moom lañ fi sottal tuddee ko mosquée du vendredi mu nekk ci biir cité administration jàkkaarloo également ak benn projet bi nga xam ne état moo ko tabax alors donc loolu yëpp wane na ne donc ñun li nga xam ne moom lañ doon fàggu moom lañ doon wut yàlla may nañ ko ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seet naa ko sama benn rakk Guèye doomu oustaz euh, Guèye bi nekkoon jàmm gën seet naa fi ñu bari ñi nga xam ne xam naa leen donc Thiès mu ngi nii alxayra sunu partenariat tey lay débuté ñu ngi leen di ñaan yàlla leen yàlla may ngeen mébéb wala ngeen eggale li nga xam ne complexe bi nga xam ne ngeen ko bëgg a tabax et puis te yàlla na yàlla sottal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. ministère de la santé et de yi dañ koy jaar te buntu ba kon buntu Thiès mooy CPRS di Mbaye Amar mi ngi nii toog di ko déggee dañuy sama yëf la may teeru gan yi kon léegi noonu toog ci ginnaaw ci sàmm euh, ñuy teeru imam Amadou Diop mi ngi nii toog lépp luy. groupe scolaire alxayriya fu mu doon ci Sénégal moom pédagogie ba ak saytu ak xool ga ak samp ga lépp alxay ci loxoom lañ ko teg mais ngi nii di ko xam éducation ndax loo yëngu ba nga tàmbalee jàng ba ni nga retraité taxul nga bàyyi xam nga loola imam mi ngi nii toog jóge Dakar bokk ci délégation alxayriya kon dañuy euh, wax ni sëriñ bi sa doomu ndey sëriñ Cheikh Tidiane Niane yegg si na mi ngi nii toog ci ginnaaw moom dafa xam ne yéefi yéefam moo tax mu bàyyi gan ñi toog ci kanam moom mi moom toog na la ca gannaaw waaye nag xam naa boo ñëwoon dend ak sawaay moo lay gënal su moo koy gënal seen Cheikh Tidiane yegg seen na jërëjëf ñu jàllale kàddu gi ci euh, benn groupe boo xam ni alxay yi def ca yëngu muy yóbbuwaate màkka bu xam kër sëñ Abbas xam ne ñu gaaw leen ci yóbbuwaate màkka benn groupe bu mag bu juddu tudd COSAPO coordination sénégalaise des acteurs du pèlerinage et de la Oumra ñu fas yéene jubbanti dëng-dëng yi am ci ak lépp lu ci diine war a jooyanti ay doomi soxna ñoo lëkkaloo samp lii ma tudd léegi seen kàddu nag oustaz Abdoul Aziz Mbaye moom la ñu ko jox mi ngi nii ci ñoom la bokkoon oustaz euh, ak sa jëkkër rek ñu jox la kàddu ko sàppoo ci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الدين هداية للمؤمنين ووفق من شاء للتمسك به والتحلي بآدابه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وصلاته وسلامه على أفضل خلقه سيدنا محمد رسول الله wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi ddin wa baad ayyuha alxuduur ayyuha alxafdu alkarim إننا بعد حمد الله والصلاة على رسوله نحييكم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi yëkkati kàddu kàddu gi nag matewu ma ko waaye xam naa samay kilifa rek ñoo ma ko yónni ma tëyeel ko président majmua boobu ñuy tudde ko sàppo taxaaj njuga mbénge leeral ko léegi te mbooloo moomu dara taxu ko jóg lu dul ni ko xaaj njuga waxe ndax ak jaamu yàlla la mooy juróomeelu ponk ci lislaam yonent bi itam bi ko yàlla sante moom ci boppam moo wax ak jaam yi ni xudu anni manasikakum na ngeen roy ci man naka ngeen koy defee du kon kon nit ku nekk na mu la neex nga koy defee dafa am ay règle ak i tëralin yuy tax ak nga am yaakaaru nangu mbooloo mii nag ci njiital imaam Idrissa Gaye yàlla dogal nekku fi waaye ku nekk dégg na kàddoom ci biir majmuwa bi muy ngéejoo teewe woon mbooloo mi ba tatagal ay ganam waaye yàllaa ngi dogal Seydi Mouhamadulil Mansour bu bàyyi xaaj Njaase nga ne leen mën naa ni xaaj Abdul Fattah gi nii ci mbooloo mi la bokk Seydi Abdul Baaqi Seydi Mouhamadulil Munir mi ngi nii ñu baree bari tey ci mbooloo moomu teew nañu dañu ma dénk kàddu gi rek waaye ñoom ñépp ñu ci sama ginnaaw teew ñëw bokk ak seen mbokk jotaay bi su ko defee nag ñuy nuyu xalifa sëriñ Abbas muy Cheikh Cheikh Ahmed Tijani jaar ko ci Seyd Abdullah mi ñu tudd léegi ak Seyd Mouhamadul Amin mi nga xamante ni ku ko xamul ci jaxasoo itam xam nga ko ci xam-xam ñu ngi lay ziyaara di leen nuyu di nuyu ñu fi nekk ñépp lenn rek lañuy ñaan li yal na ko yàlla mottali comme ni mu mottulee ni ko xaaju du ko waxe yi li am ci senegal yépp bi xale yi dugg di di woy woy yi man a ah xale yi dañu ngi tibb ci alquran di jàngal nit ñi ndax dañu wax ni xam-xam mooy lépp ku yàlla may xam-xam defal na la teraangay àdduna ak àllaaxira ku yàlla xañ xam-xam bu yeboo nga wuti xam-xam ndax yoon wa nga sóobu baaxul ma ni kat te doon ci alquran la ñuy tàmbale ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu ibadati ummati qiraati alquran waaw li gën ci li ñuy jaamoo yàlla mooy jàng alquran xale yi ni nañ dem jàng alquran waa kër Baye Abbas taxawu senegal pour ñu jàng alquran loolu alhamdulillah beneen bi ci des itam xam-xam xam-xam yonent bi sala alquran ñu wax ni yarfa illahi yarfa illahu alladina amanu walladina utul ilma darajaati loolu nag ñu bëggale ko boroom xam-xam mel ni sayduna muhammad dañ koo firil ñu laaj ko mu ni al ulamaau fawqa al muminina miatu daraja waaw ñu ni ko distance yooyu nu mu toll mu ni maa bayna darajatayni miatu aami kon boroom xam-xam yi yal na yàlla fay leen ñu ngi ndokkeel ñëpp kàddu gi rek moo xat waaye kon li ma ko saakoo yónni woon ci sant lool Abdul Fattah gërëm ko ci taxawaayam ci biir mbooloo mi mu jaral ko lépp mu defee ni rek moom moo war a def lépp yal na ko yàlla fay yal na yàlla fay mbooloo mi yëpp yal na yàlla mottali liggéey bi xam na bu Idrissa ñëwoon dina gën a matal kàddu gi waaye dañ ma ko jox rek biñ ma ko jox sax bett na ma waaye ngeen jéggal ma lu ci matul ngeen xam ni man rek ma manquil di gërëm tabaarakallaahu xaaj dut njaay di gërëm Seydou Mbaye Saint-Ger nga xam ne ñooy magi COSACO yi nekk ci seen biir di leen xelal di leen jàppale loolu ñu ngi koy nemmee ko bis bu ne hada billahi tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala trop ku sopp Serigne Abbas Sall radiyallahu taala anhu ñëw nag délégation solo i teranga yàlla na ko yàlla fay biir délégation boo gënoon léegi seen jigéen bu man góor xajja maram di madame Touré maram voyage yegg si na ma nga lële toog moom nee na mbir mi sama mbir kon du ma nekk gerte du ma toog gis nga ko ma nga lële organisé ma nga ca joxe ndox ma ak yooyu kooku madame Touré teel naa dawal otoom ñëw gars yi xam ni mbir mi mbir ma yàlla la yàlla fay aja maram te barki dem rek la jóge Màkka ci umra bi COSAPO organisé kon Serigne ñu wax ni Haji Lamine Gueye góor gi magu imam Cheikh mi toog moom it macha allah mii nitu xam-xam moom it yegg si jotaay bi Serigne Maodo Malick Guèye moom it mi ngi fii ñu ngi ko sant di ko gërëm euh, Serigne maam euh, Cheikh Serigne maam Abdou Ndiaye di sëtu Mame Alaaji moom it ñu xam ko lool ci sawet muy ndaw waaye di ko sopp mi ngi nii toog euh, Serigne Cheikh Tidiane Kébé Serigne Ahmed Tidiane ñaan maa ngi koy tudd léegi moom doomu ndeyu Serigne bi la waaye imam. asalaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii euh, xam naa ci minute yu gàtt yi bu ñu mën a lim waaye ñu ngi sàkku ci gannaaw bu ñu nuyoo suñu kilifa yi nga xam ni moo fi teewal njabootu sëñ Abbas yépp muy imam sëñ Abdoulaye Sall taxaw fi sëriñ Cheikh gannaaw bu ñu ko nuyoo ñu ngi sàkku ci Serigne Abdoul Fattah Sall ak El Hadj Ndiouga Mbeng ñu jotaloon ñu suñu nuyoo ak suñu sargal suñu joxe cër ci mbooleem ñi nga xam si ñoo fi teew eh, eh, mbir mi nag man ñi ma ñi ma yëgal sama ñëw bi yëpp damay juum naan dafa am inauguration bu ma war a fekke ji inauguration rek laay wax roi Hassan mus daana dem ay ay xew waaye bu ñu ko woowee ci pose première pierre danaan dégg naa ko maa ngi xaar ba inauguration ba pose première pierre nag bii ñuy teg nag waa alxayri di ko teg yi ñu mës a teg yëpp lu sore maanaam képp koo xam ni teew jot nga carte invitation ci pose première pierre lu mën a doon ci alxayri yaakaar naa balaa carte waa màggat wala bala mu lay réer carte immigration dañ la fekk foofu eh, loolu nag maanaam mag ñi nekk gi ñu fi nekkoon ñoom dañoo xamoon ni dañoo xamoon ni Sëñ Abbas daf ma daan wax naan wa qaddimil ahamma inna al ilma jam wal umru tayfun zaara aw dayfun alam ñoom dañoo fonkoon xam-xam ak ni ñu koy dugale ci xol yi nañ daan jànge xam-xam bu jëkk jamono bu nekk dafa am nuñ koy jànge ak yoon wi ñu war a jaar nee na li ñu war a jàng ci xam-xam dafa bare li ñu war a jàng ci xam dafa bare te dund doomu aadama am fu mu yem léeg-léeg nga gis kuy jàng xam-xam jaar ci yoon woo xam ni dana jàng ba ñu ni jeexal na téere yi te lam war a jàng da ko fay jéggi benn bis daf daf ma ni woon aman Lamine alayka bi ilmi alxaali dafa am lu ñu ilmu alxaal dafa ni ma xalil juzu saani xalil juzu saani bu ci sonoon sa bopp amalu la njëriñ ilmul mantiq xam-xam bu am maanaa la waaye bu ci sonal sa bopp dañoo toll ci njàngum ilmul xaal mag ñi nag dañuy fekk xam-xam ya nga xam ni mën naa ñàkk ñu jël ko teg nee ànd ak nag xam ni xam-xam la ya nga xam ni mënta ñàkk ñu seet la ca ë la ëpp njariñ bu paree ñi seet ñi teg ca la tegu bu paree ñi teg ca la tegu du njàngale boobu nag mag ñi biir xam-xam dañuy seet la li nga xam si moom moom la jamono ji laaj yaakaar naa deux mille vingt ba deux mille deux mille vingt ba léegi bu fekkonte ni dañoo war a defar maanaam ay vaccin yoo xam ni day faj ay jàngoro yaakaar naa ne ba leen gënoon a ci vaccin ci vaccin yi mooy vaccin Covid moo gën a gënoon ëpp itteel mag ñi itam ci wàllu xam-xam dañuy seet la nga xam ni mooy xam-xam bi ñuy dund te ba ca gën a rëy gën cee gën ci am maana mooy fexe ba nit ñi wéetal yàlla mooy li nga xam mooy li te bi ci ëpp maanaa nga xam si moom mooy sax ci xol yi mooy fexe ba. alquran xale yi teel koo mokkal ndax alquran la muy def ci xol bi fahmin wa bi duni fahmin gannaaw alquran nga mokkal ko nga boo ko mokkalee nga xam la muy firi ak ñàkk koo xam benn la kon nañ fexe si Abbas li lim gënoon a ittewoo mooy xale yi nañ fexe ba alquran gën a sax ci seen xol yi rek bu loolu xasee am moo tax daana wax ni moom soppul xale bu amagul bu fukki at ak ñettam matagul muy jàng lenn lenn lu dul alquran te it méthode boobu mu waxoon ko essayé nañ ko bépp xale boo xam ne si maanaam alquran jiitu na ci yow fànn boo dem rek yaa cay man noonu ma ngi doon jàngalee nag seen méthode yooyu nag seeni njaboot seeni njaboot rek ñoom ñoo xam nan la ñuy fexee ba jàng ko eh, moo tax bu ñu nee. maanaam njàngaleem alxayriya waa alxayriya seen moo du njàngale du jàggee ni dañu naan nii lañu fekk ñuy jàngale xam-xam bi rek noonu lañ koy jàngale déedéet ndax jamono ji yëg yëg ngeen ni yëg ngeen ni am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni la ñuy jàngal seen élève seen wal seen seeni xale la ca gën a rëy la ca gën a rëy mooy nan la ñuy fexee ba li fi mag ñi indi woon ñu jële ko fi loolu mooy mooy li ñuy gën jëkk jàng nañuy fexe ba li fi mag ñi indi woon nan la ñuy fexe ba jële ko fi am na ay jàngalekat yoo xam ne si loolu mooy seen itte ci wàllum jàngale te ñoom nee nañ diine la jàngale bu boobaa nag dañuy wax ni euh, waman raa xanaman fi ardi masaratin wa xaaba anha tawalla raayahal asadu booy sàmm sa jur ci àll bu ndeñ ment bare ay segge ci gaynde boo dëddoo sëy jur saw jur gaynde sàmmal la ko tilli sàmmal la ko comme am na ñoo xam ni dañoo taxaw tem di jàngal seeni élève nan lañuy ñuy weddee jële fi li fi mag ñi bàyyi woon kon njabootu mag ñi ñoom it war nañoo fexe ba seeni xale ñu di leen gën a dëgëral la fi mag ñi bàyyi woon te képp ku sax ci la fi mag ñi bàyyi woon loolu mooy li nga xam ni moom la yàlla gërëm ndax nag eh, bu fekkente ni maanaam dañ ni tëli bii moo jaar nii jëm Dakar am ay pano mu am ñu ci jaar ba dem Dakar ñëwaat di ci jaar dem Dakar ñëwaat muy tëli bu bu bu tàlli bu ñu demee ba gis nag benn bi si am ku fent weneen yoon wu bokkut ak woowa rafet lool jub lool leer lool ñu ni ñu Dakar la jëm te kenn mu si cee jaar la gën a wóor mooy jaar ci bi nga xam ni fa lañ daan jaar li nga xam ni moom la fi Serigne Touba rëddoon si daxaay may rëdd ko fi mag ñu baax ñi nga xam si ñoo fi nekkoon rëdd ko fi ñu ak ñu mel ne ñoom loolee nga xam dañoo dem bàyyi ko fi bu ñu fi bàyyee leneen di wuti leneen loola lu mu baax baax baax lee ko gën parce que am na ñuy ci ba jàll loolee nag mooy wàllu lii nga xam si ndax bu dul woon ak loolu alxayriye mën nañoo yem ci tabax ay jàkka rek daan ni ñeneen ñaa ngi jàngale gas ay teen daan na ñeneen ñaa ngi jàngale dimbali ay néew ji doole daan ñeneen ñaa ngi jàngale waaye nag liggéeyu Serigne Abbas liggéeyu Serigne Abbas moom la ñuy àggale ndax ceroog bi jumaam jàkk ji ci Louga bi mu paree bi mu paree ba ñu inauguré ko ba pare fekk dafa ni dafa ni mbooloo mi man de yonent bi sallallahu alayhi wa melokaan yi ñu ko tagge yépp bàyyi na kook moom waaye am na ci benn boo xam ni du ko bàyyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wa dëhru fi himami nee na himamu dëhri moom du ko bàyyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni jàkke ji pare décédé ma ay jàkke yu bare mi ngi ci kanam jàkke ji pare tey décédé ma ay jàkke yu bare kon ba léegi deux cent quarante et jàkk yi ngeen dégg yëpp ñan ko sof ci jàkk yi suñu abal tabaxoon te fii ñu commencé jëm ca kanam it yëpp ay mel noonu ànd ak nag amu ci lenn loo xam ne sii maanaam euh, yëkkatigu ga wala siggi ga wala cant ga dañ cee jublu pour nañ ko sant si sëñ Abbas njabootu sëñ Abbas néewuñu kaay leen jël jàkk ji lii lañ fi tabax lan ngeen xam ci Sëñ Abass déedéet dañ naan Sëñ Abass daal moom moo sofoon yoon wi teg ko ci yoon yàlla njabootam di ko ko continuer ñi ñii gis nag ñooy xool ba xam lii nan la demee ak li fi yonent bi sallallahu alayhi bàyyi woon Sëñ daal li mu waxoon mooy mag ñi dañoo nekk ci ndar nee na ñu daan Serigne Touba ak Sidi Hadj Maye day kenn mënatu leen a dab fañ àggoon kenn du fa àgg kenn ku nekk di wax Serigne Abbas daal ni man day man man Abbas Serigne Touba xëy na ci mbiram xaw ma ci lu bare waaye Sidi mi ma xam fa mu tegoon tànkam fa mu yemoon man bu ma sañoon foofu lay commencé jëm kaw. ndax Seydi Hadji Malick moo ni bu fekkente ni may xam-xam yàlla da koy maye wilaaye yàlla da koy maye kenn mooy wax de Seydi Hadji Malick nee na kenn amul sañ-sañ di wax ni la yàlla mayoon mag ña keneen dootu ko amaat keneen dootu ko amaat kon Serigne tuubaay it loolu la wax euh, bu ko defee nag kon noonu nga xam si noonu la ma ngi daan jàngee loolu la ñu fas yéene li ñuy ñaan nag mooy ñi nga xam ni ñoo dëkkee ci gox bii eh, maanaam di ñaan di ñaanal sëñ Ismaïla Soumaré yi ak ñi mu àndal ci coopérative bi ñi mu àndal ci doxalin bi dañ leen di ñaanal yàlla yàlla ñi nga xam ne ñoo fi jógee yàlla yàlla eh, xare leen aljanna ñuy ñaan nag ñooña gala yàlla bu leen yàlla xare ak ñi fi des yàlla nañ fi gën a yàgg di taxawee lu mel nii ndax nag nii mu waxee di dégg ko te déggoon nañ ko ci Serigne Fata kon am na sa am na jërëjëf parce que nag lii ñuy taxawal fii buñ ko fi taxawee képp ku ci laal ak loo ci def lu mën a tuuti tuyaaba ji dafa lay dafa lay dafa lay topp ba faw waaw bu ko defee kon bala ñuy gën a guddal kon ñu fi nekk wax ji dañ ko war a wax te ñi doon sànni ay cadre ñaan yàlla may ñu dégg ak topp di di man nag sama sant gërëm ci làmmiñ si Abdou Fatah mii laa koy waxee muy alaaj njuga mbeng mii loolu kooku ñépp ko war a ñaanal ñépp ko war a sant sant moom sante la fi nekke te kenn du ko sant xanaa sant baatin buñ ko sant ci xol te nag maanaam daf ni ñëpp di war a kaalawoo la war a kaalawoo doomu soxna ba pare li li sa doomu soxla yi jàng jàng na ko ba pare fu doomu soxna yi taxaw mu mu sant leen kooku xëy na gën a yeewu nit ñi la waaye moom it ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla yàlla gën a gën ko jëme ca kanam jërëjëf. sax machine buy mool ay ñi kon loolu yaakaar naa ci liggéey bi la yàlla ko yàlla euh, Sow yow it allah woote nga waaye say mbokk wuy si nañu la bokk na ci ñoom préfet Babacar Mbaye mi ci jotaay bi toog bi ma ko nuyoo léegi dama ko préfet yëkkati la moom mbaa diisu la. mu ne liggéey bi jaral na ma ko waaye soxna si jaral na ma ko kon wuy si la la macha allah euh, soxna jamantu euh, arafat moom it mi ngi fii délégation bu Dakar euh, Linda Yacine ak Nenne ñoom it teew nañu Seyda jotal kàddu yi nga xamante ne bi suñu ay kilifa lañu ñu àndal gunge leen ci jotaay bi ginnaaw bi ñëwalee suñu bopp muy xaaji Dunyaay Persa ak mu ànd ak doomu ndeyam pour foo tuddee du Ndiaye Presta tudd Babacar Diouf ci wetam euh, yàlla dogal nag moom xaaji du Ndiaye ci boppam moom moo bëggoon taxaw fii tey ci jotaay bi wax waaye nee na gëlëm moom moo ko teree mën a taxaw jàkkaaroog doomu ndeyam yi mbokkam yu baax yi di wax ndax lu waral gëlëmam jotaay bii daf fee toog waaye xelam yépp ci seexam ba la nekk mooy Moustapha Sall rahimahullah nee na bi mu fi ne cëpp moom rek la gis takk ndeeram moo ko wéttali ba xolam tooy na tooyaay boo xamante ne bii mënul yëkkati kàddu waaye kàddu gi daal li mu jot a yónnee ànd kaat doomu ndeyam bi di xaaji Babacar Diouf ñu gën koo xam ci Mbaye saint xaaji Duudu nee na ginnaaw bi mu santee suñu kilifa bi ñaanal ko yàlla xilaafa bi yegg si ci loxoom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sall xalifatul am nee na mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal xilaafa bi yal na ko yenu ay at yu bare bare bare mu dellu nee mi ngi yëkkati nuyoom nag di ko teg ci mbokkam yi mu fi fekk ñu jotalal ko ko xalif bi mooy imam Abdallahi Sall ak imam Pape Mayoro Sall ak imam Mouhamadul Amin Sall nee na mi ngi leen di sant yëkkati ay kàddu yi mu leen jox ñu jotalal ko ko xalifa bi waaye ci kaw loolu mu leen di sedd ni rakkam bii di Abdoul Fattah Sall ñoom de nee nañu seen xol sedd na ci seen rakk bii di Abdoul Fattah Sall mi nga xamante ne bii tey moom moo fi nekkal ONG Al Khayriya nee na muy sedd mbooloo mi yépp ne lii ñu fi def defaluñ ko kenn ñoom lañ ko fi defal te insha allahu rabbi dinañu xam ne ñoom lañ ko fi defal te dinañu xam ne it ñoom ñooy ñu war a taxawu liggéey bi insha allahu rabbi ndax loolu bu ko waxee it ñun dañ ko koy nangul xam ne ñun ci ay surgaam lañu ñu bokk ndax ñu nag moom ñun ñooy ànd ci yoonu màkk bi waaye tey bi xew-xew bi amee képp koo xamante ne bii yaa ngi liggéey ak taabu voyage di liggéey ak Rahman voyage Doudou Ndiaye la ne bàyyi la nga jàppoon lépp ngeen ñëw gunge ñu ci bés bii bokk na ci ñi ko gunge ci bés bi fekk nañ ci doomu ndeyam ñu naan ko alxaji Pape Diagne mi ngi fii toog tey ci subaak léegi amul ku mu soññul ci ñun ci jóg ba kër Thierno Abuja dafa woote woon foofu ne bu fa kenn des na ñëpp ñëw jóg waaye yàlla dogal ñoom tamit ñu amoon yéene xew teew ci waaye xew-xew bu mel nii moom moo am foofu wa euh, mbokk mu noppal ñu teew woon ci lu mel noonu waaye aj xaaji dun daan nee na mu ngi leen di seede ne digganteem ak alxayriya digganteem ak njabootu Baye Abdallah euh, euh, sëñ digganteem ak kër sëñ Abbas kooku moom moom du ci seppi dara te du fi taxaw sax di wax moom ci njaboot gi la comme ni ko Ndiouga waxee mi ngi sant mi ngi gërëm kàddu yi nga xamante ne bi amoon na lu ëppoon lii waaye temps xat moo taxoon mu yónnee ñu tënkale ko ko nii rek nee na ngeen jàppale ko it ñaanalal ko seexam bi Mouhamadul Moustapha yal na xippee àjjana bi barakati rasul sallallahu alayhi wa sallam moo ñam fa fekk ñëpp wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin di jiital ci nuyoo ba lépp nag suñu kilifa gi muy sëñ Abdallah Sall di nuyu mboolem ñi fi teew di wax itam ci turu alxayriya nga xam ne yàlla dogal na ci sunu loxo la sosoon depuis mille neuf cent euh, deux neuf cent quatre-vingt-quatorze de sos suñu ba léegi mu ëpp ñeent fukki at man ak suma rak soxna Xalima ñoo ko sosoon ak sëriñ Mouhamadul Moustapha Sall tey jii nag ñuy wax ci turam ndax lañ cee xam lu bare bare bari ñoo ko sos ba jëm yàlla tey ji bi ñu leen nuyoo ba pare nag bala ñoo commencé wax ji dañuy indi suñu ay ngërëm ci ki nga xam ne si mooy Ismaïla Soumaré nga xam ne si moo nu jàppale ba nu am terrain bi toll nii loolu muy loo xam ne si defal na ko képp koo xam ne si bokk na ci association bi alxayri na tur wi mi ngi tudd association de la coopération islamique pour l'éducation et la l'enseignement euh, jamiya tarbiyat islamia jamiyat islamia li jamiya taawun islami li tarbiya wa taalim loolu la tur tudd alxayriya mooy li muy def mooy def loo xam ne si da koy def ngir yàlla rek ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñi fi teew ñëpp mënuñu leen a tudd waaye nag daf ci am ñoo xam ne si eh, dañ fay ñëwal sëñ Abdou Fattah di xaritam di léppam eh, mën nañ ci tudd rek ki nga xam ne si moom na ko wax muy Mansour Mbaye ak ki nga xam ne si tamit mooy ñu jóge Canaba ñu dugg ci eh, sëriñ ba dikkee waaw ah, mu àndal lu tax ñu tudd suñ Mansour nag ñun lépp bokk ci yi Njaase Mbay day suñu mbokk di suñu lépp ndax yu euh, mbay magam ak ki nga xam ne si mooy sëriñ xalifa Seck bu Thiénaba di sëriñ doom sëriñ alfa Seck ñun ñoo bokk nekk ci Bagdad am fa mbokkoo goo xam ne si bi ñëwee fii mbokkoo nañ ko lool léegi boo gisee ma wax tamit allah ji ñu jóge dafa ni eh, sëñ ma dikkee di xaritu sëñ Abdou Fatah waaye xëy na xaritam la waaye mbokk na ñu ñoo bokk benn maam eh, barki dem bi ma ñëwee ci Thiès ci xewu sëriñ Khalifa Seck bi ma leen ne eh, Ngoné Fall mooy sama maam rek eh, géwalu cena bay dañoo jóg daal ma nag dangay ñëw toogaat ñu wax la la nga bokk ak ñoom kon eh, waa cena ba suñu ay nijaaya fa nekk mag ñi xam nañ ko bu baax a baax kon sëñ ma dikkee sëñ Abdou Fatah bu dee sa xarit la nangu nañ ci waaye am na lu weesu loolu mooy yoon yéen bokk benn maam kooku ñu ngi leen ko xëy na yéen seen at ma toll foo xam ne si toppatoowu leen ko noonu ni nga ko war a xam ne waaye bu nga xamee dañuy xam ne yéen a bokk lépp ci biir nuyoo tamit mënuñoo ñëw ca tudd ñu nga xam si mooy eh, alaaji dunyaay ak taxawaay bi nga xam ne si tey fu ñu tuddee sëñ Moussa Fall ko tudd ànd ak ki nga xam si mooy léppam di mbay saint nga xam ni moom itam dafa lépp lu jabootoo ci sëñ Moussa Fall waaye mu xarit sëñ Moussa rek xam nga kuy sëñ Mbaye Saint-Germain ak teraanga joo xam ne si ku ñëw këram rek dana la teral loolu ak li nga xam ne si digganteem ak suñ Moustapha loon ci biir loolu tamit ñu ngi nuyu mbooleem lu fi nekk nag ci turu bi c'est lu bëgg indi rek benn présentation bu ndaw ci alxayriya pour ñu xam ko eh, li Serigne Mouhamadul Amine wax léegi ay doomu Serigne Abbas lañ Serigne Abbas it ku xamoon ku xamoon yoonam nii lay jaare ndax foo ko fekk rek ci loo xam ne si da naan la nga naan fii la yam boo ñëwee da ngay xam ni sëriñ Abbas passé na lool benn lu moo doon yitteem mooy na lislaam tasaaroo na lislaam tasaaroo donc moo doon moo doon moo doon moo doon yitteem ci biir loolu tamit eh, suñu rakk muy soxna Halima taxaw taxawaayam bépp nekk imaaraat di góor gu jàmbaare ci boppam jigéen di jàmbaare ndax lan bi muy dem borom këram la fa àndaloon waaye ba mu demee alhamdulilah bi am fekk na mokk na alxuraan kër baayam dafa dem foofu di fa jàngale alquran ban ko jëkkee wax ni ko dan lay loolu lay fay dafa ni alquran du ci fayee ko baatu du ci fayee ko boobu moo neex ñenn ci naar yi ba lu ba lu nañu defal ko ndax dana du fayee ko mu lekk dërëm ci ci ci alquran da koy jàngale ngir yàlla ndax lii la ko bàyyam dénk noonu ban ko waxee loolu alhamdulilah bi mu ne yàlla am na ci moom am na ci loo xam ne si bu doon fayee ko sax du ko ci mën am mu dem ba bu ci soxna xarit ma xam ni que njàngay dëgg moom ak nga xam ne yor na njabootam waaye mu dugg di jàng arab def C def CP primaire alhamdulilah ba yàlla di ko jàng mu jàng brevet bac ba am doctorat ba jàngal ci université waaye lépp nag li ñu waxoon rek ñi nga xam ne si ñoom la bëggoon jàngal alquran ñun mun leen du ma fayu ñoom ñoo taxawu daan ni ko daa soxna xalima xam na ni yow ku dëggoo ngi nii lépp la bëgg rek ñu ànd ci yow ci liggéey bi xam ne tamit ñun duñu association boo xam ne si lënkoo nañoo kenn lënkoo nañu du benn réew boo xam si ñooñu lël ko du kenn koo xam ne si association bu nuy financé amu ci tamit kenn ku ñuy influencé tamit ndax tamit ñu nu bëgg a doxale rek noonu lañu ñu doxale topp ñu kenn jiitaluñ ci kenn alhamdulilah rabbil alamin na ci jumaa yi comme ni ko ci yi def nañ ci ay jumaa yu bari mais jumaa yi tamit daanaka yenn saa yi sax ñu ñu bokk sëriñ Abbas mer ñu ci ndax tabax na lu mën ñeent fukki jàkk yoo xam ne si mosuñu tabax dëkk dëkk boo xam ne sëñ Abass am na fa taalibe ba jumaay sëñ Abass bi nekk ndar dem na bay daanu waaye ban ne dañ ko defee ni ko déedéet ndax du duñ àggale jàkk duñ defaraat jàkk soxna Xalima ci mbaaxam ba mu ko waxee ba mu ko waxee benn naar mu dékku daal ñu ko waaw lu tax waxoo li mu ne ko déedéet principe bi ñuy tabax liy liggéey jàkk la ñuy liggéey jàkk benn naar moo mujj taxaw daal ñu ko déedéet kon nan leen seet jàkk jumaa ji ci ndar nan ko defee ba jumaa ji ci mel nii mu mel ndax lépp ak sellal goo xam ne si soxna Xalima def na ko ci ci ci jumaa amuñu ci frontière amuñu nan koy defaree yenn saa yi ñu def ko foo xam ne si bu doon tey lu ñu tànn la ñu ko def waaye yàlla moo tànn loolu ni ñu koy defee ci jàkka yi noonu lañ koy defee ci teen yi tey xëy na jàkka ji mën naa joxe benn exemple parce que tamit comme mbir mi dañ cee bokk dañ joxe exemple pour tout xam li ñuy wax nga sànge bi ñu fay tabax jàkka benn terrain moo fa nekkoon terrain bu mel nii église ba moo fa nekk waa église ba ba ñuy tabax defaraat seen église jàkka bunt yi lan may jumaa ja jàkk pour mën faa def loo xam si buntu ba am jàkk keroog man ba ma fa demee sama benn nijaay bu naan Abdou Aziz ba benn xaritam boo wax gis wax ko man ba ma fa demee di leen wax naan dinañu bëgg jumaa benn tiitoon nañu ndax ñeen ko wax bari na ñaareel ba mooy kii kër sëriñ la jóge lu mu bëgg man leen nag dañ leen bëgg a tabaxal jumaa ñoom sax bañoon nañ gannaaw bi nag mag ñi ñoo waxtaan daan ni ñëwal keroog 1 million laa leen jox ma leen biri kese moo def keroog ba ba jumaa ja pare boobu leen fa gëj suñu yoon nekkul ca imaam baak na ni jullee naka noonu nin jamaa yooyu ni mu demee mën na leen ko waxee ci teen yi mën na leen ko waxee ci yeneen ni alhamdulilah rabbil alamin ni ñu defaree jumaa noonu lañ defaree ay poste de santé yoo xam ne si benn bu nekk ku fa dem da gis ni dëgg yàlla poste de santé bi ni mu ni ko ni mu war a mel mel na ko naa yi tamit alhamdulilah rabbil alamin xëy na mën naa ci wax tuuti ndax tamit yàgg nañ ci depuis 2001 ba léegi ñu ngi yor orphelin et mën naa joxe exemple ci Louga kese ndax Louga xale ya fa nekk yëpp xale bu fa ñëw da nga jàng école da nga jàng balaa booy am bërëb brevet dana fekk nga mokkal alxuraan booy am bac danga fekk nga am nga jàng nga jàng téere fiq yi ñu war a jàng ba nga xamee ni si alhamdulilah rabbil alamin ñu ci bari ñu ngi université am na ci ñoo xam ne si tey ñu nga Europe di fa jàng ci Louga bi rek laa wax ca orphelinat bi nañ ko amee Louga lan ko amee place yu bari lan ko amee eh, Ngumba lan ko amee fii Pout am na fi benn boo demee Dakar am nañ fa tamit orphelinat jëm ñaajo am na boo xam ne ñu ngi koy tabax boo xam ne ci incha allahu eh, ñu ngay karo fi ñu toll nii samit bi ñëw lay commencé peinture ci wetu Louga dëkk bu naan eh, dëkk bu naan jëlleeru et eh, lii Serigne wax tamit ñun fépp fu nu liggéey rek ku yor carte invitation ba balaa màggat yàlla mën naa dogal immigration bi ñëw Kébémer dañ fa inauguré benn dañ fa def pose première pierre le 23 bii jóge mais incha allah 4 mois lañ wax ni 4 mois normalement Euh, bu nu yàlla dimbalee incha allahu ci mois de mars bi li li nar ko indi ca du jàkk bu ndaw jàkk bu rëy la boo xam ne si ban leen joxee euh, plan bi ñoom seen bopp jàpp nañ lii xëy na sax <laughs> moom yim na leen loolu daal ndax R plus 1 la ci ak yi ci war a ak yëpp bokkul ak jàkk jigéen ñi bokkul ak annexe yi war a am ci jàkk ji yëpp pour dire que ni lépp bu ñu ko defee tamit dañ koy def ngir yàlla rek ñun propagande kenn kenn ñu kenn kaay ñu ànd ak ñun pour ñu am amul tamit loo xam ne si dañ naan kaay def ko pour bokk ak ñun lii exemple yi mën na ëpp lii nag waaye loolu boo gisee ñu koy wax mooy lan dañu bëgg rek ànd ak ñëpp xoola jamiya taawun islami la tudd tur jàppandoo ca yàlla tax loolu nag dañ bëgg a tasaaree ak ñëpp nag moo tax bii dañ ko ubbi lépp ñun mësuñu mësuñu jël demande kenn mësuñu jël tamit kayitu kenn yóbbu ko ci benn naat bari ci démb dama dem fii ñu ku ci jëkk a wax dafa ne waaye yéen sawu jeen ñoo leen di financé mais déedéet sawu jeen parce que na ko ñëpp xam benn fifteen mësuñu ko mësuñu la ko financé malgré nag suñu alaaka suñu relation ak saoudien alaaka bu rëy la nag ndax kës saoudien ñëw nañ kës ñu Abbas di taxaw fa di fa seen école di fa def man fa laa jàngalee ñaar fanweer at maa ngi jàngalee mais nag ànd ak lépp nag suñu activité yi def nag seen fifteen mësu ci kon loolu tamit war nañ ko leeral nit du beneen association aussi loolu moo tax ma ne kenn mënuñu influencé dara waaye pare nañu pour ànd ak ñëpp pare nañu pour ànd ak yëpp dañuy bañ daal mooy loo xam ni dañ ko dañ ko am fu ñu koy yemale yemale ko ci mbooloo wala yemale ko ci lii lool la ñuy bañ waaye képp ko julli rek pare nañ ànd ak ñun ca liggéey bi ma la wax nii tey xëy na li ma wax rek temps bi waxati ñun ni ko defee Sénégal noonu ko defee ci sous-région bi boo demee Gambie boo demee Mauritanie boo demee Mali ak yeneen activités yoo xam ne si eh, comme li Serigne Juga wax ni ma 5000 nga fi am mais mënoon nañ leen ko gën a présenté lan lañ ci jublu présentation bi rek mooy teg xamante rek di tax aarafu ndax nit ñi bu ngeen xamante wul mën nga koo ragal wala yaakaar ne kii la ngay jaar fee affaire wala nga xamoo nu mel wala mën na am yow sa bopp ku mel ni nga doon wut loolu dong dañ jublu ci présentation bi waaye du leneen du mbooloo amuñu soxla mun amuñu mbooloo mu ñuy wuti amuñu mbooloo wax dañ naan ko deful lii amuñu di dañ koy def naan kër Serigne Abass dañ koy defal wala kër Serigne Abass dañ koy wooteel ah te dafa fekk nag mënuñu wax ci tudd mu Serigne Abass ak li Serigne moom la min waxoon léegi ba mu newee ni jàkka de yaa ngi bari eh Serigne Abass ni kilifa yëpp def def ndax lan la def mooy def mooy kilifa goo fi gis nag teraanga gam am yëpp dañoo boole la sëriñ ba defat la ay njabootam def tudde ko sëriñ ba moo tax ñun loolu bañ liñ def yëpp nag tudde ko suñu abbas waaye nag du def boo xam si woote la kenn ku ne la nga def fii bàyyi fii suñu abbas def na lu noonu bu dee ay xasida bu toll noonu bu dee ay jàkk toll noonu bu dee dëkk def na noonu waaye nag buñ jëlee seen liggéeyu njaboot boole kook la la seen maam ja def jox ko seen maam ah ñun waruñoo ñun contre mu leen di naw gi leen ci naw moo tax ñun ñi tamit suñu liggéey lu mu bari bari kuñ ciy wax dañ koy delloo ci seen Abbas loolu moo tax ñun boo tuddee Serigne Abbas rek bu dee am lu ñuy fay ñu danaan fay nga ñu waaw maaye nag wóote wuñu jëme ci orphelin yooyu ñu yoroon xoolal ñoo leen yor fii ña ñaga fa ñaar fukki at yàlla ba léegi heure bu nekk xale yaa ngi ñëw mais mënuñu jàngale kenn ni ko lii suñu Abbas aka wax wala waxu suñu Abbas wala jàngale ko mosul am kon dañuy yemale fii alimentation ak maktaba bi ma wax ak yu ni demee lépp luy jëriñ jullit kenn nag mënta bàggante lu ko Dakar Dakar Thiès mënta ne moo tax ñu tànn koo xam ne ku yaru-yaru mag ñi la mooy Ahmad Mbay mi sëriñ bi xool ko ci biir ak ci biti di ko waatewoon fonk di koo xam ne mag ñi dong la gëm mu jël liggéey bépp teg ko ci loxoom ni ko deema xoolal yaa fi sama bët yaa fi sama loxo loola jaaxal naa ko yëg Dakar soriwul Ahmad Mbay présentel sa bopp ñaari ma jox sëñ Abdoulaye mu ñaan ñu leen te xeer wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen jéggalu mu mel ni temps bi daf ñoo njët ndax bokk naa ci ñu doon wax heure bi fi mu war a yem kon duñ ko jéggi waaye li ñuy wax ci kàddu bu gàtt sëriñ ma yoro mooy man Mouhamed Mbaye laa tudd ku ñuy wax imam mbay moo ma jur tafsir Malick Mbaye jur ko bu Seex Seydil Xaaji Malick yàlla dogal suñu kàddu fenn rek lay jëm mooy ci Cheikh Abdoul Fattah sàll ndax suñu diggante ak moom ku ne xam na Cheikh Mar Abbas ni mu mel ci kër sëñ Abbas waaye mer ko ci wàllu sëñ Abdoul Fattah suñu waxee ci kàddoom wax ci kàddu taalibe yi fi nekk yépp mooy bi may woo di ma wax ni ma dafa am lu ñu bëgg a def fii dani ma duñu bëgg duñu mën di jaabante Cees Dakar kon dañ leen di jël wuutal leen ci suñu diggante ci ñiy jaay suuf ñiy jaay ciment ñiy jaay nàngam bi ñu tàmbalee ci liggéey boobu am na ay nit ñu ni dañoo bëggoon a joxe seen participation muy ndimbal mu ne ah loolu de baax na ñoom nañ ñëw rek suñu ñëwee egsi toog fekke waaye laajuñu kenn dara soxlawuñu waxuñu kenn bul joxe dara ngir yàlla waaye lii moom liñ ciy def pare nañ muy benn bi ko ñaaree lit lépp loo xam ne yëngatu la teg na ko ci yoon ni nañ ko defee defin boo xam ne noonu la yàlla gërëm loolu la yonent bi gërëm kon loolu yéen lañ koy sante ñaanal leen yàlla ñaanal ko yàlla moom sëñ Abdul Fatah ci kàddu taalibe yëpp yàlla na yàlla ko taxaw su ko neexoon fi mu toll ci dayo du jaxasoog taalibe waaye képp kuy taalibe li commencé dakaar ba Ndar ku fii taalibe yàlla boole la ak moom jëflante na ak yow wan la ni la man ak yow ñoo bokk daara xeebul kenn ñóoruwul kenn kon taalibe yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm mu law ba ci yéen bi ci des nag sa njuga mooy Cheikh Xaaji Mansour bu Cheikh Seydil Xaaji Malick di wayjuru xalifa bii fi nekk dafa waxoon ne laa yaxtifannakumul xattaafu fajtahidu ñu ni ko lu tax mu ni dunyaakum haadihi daarun nadaamaat àdduna bi fëkk fëkk gi def feebar bari kon bu waa kër Serigne Abbas taxawoo seen alal taxawu seen doole am na ñuy dem bitim réew di ñëw waaye bu ñu ñëwee tabaxuñu ay jàkk tabaxuñu ay tànt li ñuy tabax mooy lu ñu def ci seen bopp waaye bu ñu ñëwee yëkkati ay di tabax ay jàkka di tabax ay jumaa di tabax fu ay xale di jàngee kon fëkk googu ñoom bokkuñu ci kon ñaan nañ ñu ngi taxawit ba képp ku nar a fëkk ndaw ñi waa kër sëñ Abbas dox sa digganteek ndaw ñi ba kenn du la fëkk kon loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko def ubbi ba mu mat ay junniy junni te yéen ñëpp ñu fekk ko ci barke yonent bi taalibe yëpp ñu ngi sant sëñ Abdul Fatah di sant waa kër sëriñ Abbas yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah lu tax ma woo mooy damaa bëgg nga wax sëñ Abdul Fatah ni ko budul woon ak budul woon ak tukki gi ma tukki man maay ñëw taxawal ko sama bopp mun ma bu ngeen xëyee Abdoul Baqi dina dem mu Munir dina dem waaye yéen ñëpp na ngeen dem taxawu sëñ Abdoul Fatah taxaw waa kër sëñ Abbas ngir suñu diggante sëñ Babacar Kese mu ngi sant sëñ Abdoul Fatah ñëpp ngi koy sant ci barke yonent bi sàll yàlla yàlla fay la wasalaamaaleykum wa rahmatullah ndax sëriñ Mouhamad mu imam Pape Mourtada yaay kilifaan moo it ma nga jëm ñaajo kon pour wax ni rek Thiénaba tamit sunu di leen gunge ba lépp. bi juñu la ko léegi. njuga day koo xam ne kenn la ci Thiénaba waaye fi mu ne nii kenn la ci Sénégal waaye kenn la ci àdduna fu mu toll lu rafet lay wax ci nit ñi bàyyi boppam di doomu soxna piir nag maga maga nee boo demee ca itali liggéey bu rëy la fa yor ci lislaam rakka ma nga nee di alxaaji Mamor Mbeng liggéey bu rëy la yor moom itam ci lislaam ñoom loolu rek lañ doon waaye moom mooy koo mooy koo xam ni kenn la ma bëgg yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yàlla yàlla dimbali ko dolli am dolli wéram sëriñ Ndiouga nit ku baax la waaye sëñ Abdou Fatah ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci yu bëree bëree bëree bëree waaye ñu ngi lay santaat bu baax ci alxaaji Ndiouga mii sëriñ Abdoulaye Seck xaritu sama xarit bële la moo nekk Louga sama doom la sëriñ ma dikk Seck sama doom la moom itam mu nga ca ngumba ca ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soo ñëwee da ngay wax suñu waxee ba àggal mën na leen yéen de ñooñu ngeen xam waaye bu ngeen xamoon ci sëñ Abbas dara di ngeen xam ne ñii nii lañ mën a mel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ndeysaan jërëjëf sëriñ Madike moom nit ku baax la surtout sëriñ Canaba la way juróom sëriñ Ousseynou Khoudia moo nekkoon moo nekkoon juróomeelu xalifa maam Ahmadou Ndak bi mu toogee nekk xalifa moom way juróom li mu njëkk def mooy jaay këram ga ca Ndakaaru yokkee ko jumaay Canaba waaw moom loolu la njëkk a def moom kon ñoom it loolu lañ xam yàlla yàlla fay kon su defee euh, Mara yaakaar kon ñu jox sang bu ñaan ñu labbee ko ndax jinax bañ ko nee ndax kanamu muus rafet na sëriñ aas daani jotuma koo seetlu ndax fi ñuy daje daaxar ji nax bañ ko nee ndax kanamu muus rafet na mu ni jotuma koo seetlu ndax fi ñuy daje daa xat ah, waaye jataay bii dafa xat hmm. waaye sëriñ Abdul Fattah Sall bum sëriñ baas boo fu defee lu toll nii ànd ko sa mbokk yii sa mag yu tedd yii ñu teew ci barab bii te jëluñu kaddu day am lu muy nduru dëkk bii di cees kaay ku fi dugg nag man grand sëriñ faaw ma jël kaddu ndax nag sëriñ si bari nañ fi lool waaye grand sëriñ moom alaaji du Njaay alaaji Mbay ci man la tàmbalee waaw grand sëriñ bu Thiès fii ci man la tàmbalee kon sàll ñu ngi leen di ñaanal sunu borom yal na yàlla gën a sàmm yal na yàlla gën a guddal fan yi yàlla gën a wéral yi ñetti façon yi doom dafa am doom juy tiital baayam ak doom ju baayam di tiitaroo ak doom joo xamante ni day tiitaroo baayam yéen de seen waajur wa Serigne Abbas bul del si waatoon du ngeen soppi mukk seen toogaay bi yal na yàlla guddal seen fan jërë ngeen jëf alaaj Doudou Ndiaye président euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziyaara xanaa di di lool di am mbégte ci kàddu yi fi yëkkatiku yépp li commencé tabaarakallaahu ci ñi fi jëkk jël kàddu nga xam ni ñoom ñoo tax terrain bi agsi ci alxayriya ñu ngi leen di gërëm di leen ziyaara di leen ñaanal waaye tamit ñu ngi am mbégte ci suñu rakk ji fi yëkkati kàddu Cheikh Mouhamadul Lamine kàddu yu gàtt waaye kàddu yu jotale waaye suñu rakk imaam Pape Mayoro Sall kàddu yi fi yëkkati yu am solo yu jar di wax waaye du nuyu mbokk yi fi teew yépp waaye Cheikh Abdou Fattah tabarakallahu ni ko soxna alimatu bëggee rek moom noonu la ko bëggee soxna alimatu bëggul sax kuy tudd turam daf naan ma tudd leen alxayri yi rek ngeen dimbale ma rek bu leen tudd sama tur moom noonu la yëg noonu lay noonu lay defe loolu moo tax du ñuy faral di tudd turam ci mbir yi di ko gërëm ndax soxla neen bëgg ko sax boobu doy waar loolu mooy jaamu yàlla waaye Cheikh Abdou Fattah it moom it tax du faral di tudd turam di ko gërëm moom loolu maanaa daanaka bëggu ko moo tax ñu xam moo tax du ñu sore ci moom waaye di gërëm ñi fi teew ñëpp kilifa yi yëpp teew yëpp kilifa diine kilifa aada ndax sëñ Abbas nag yàlla daf ko dimbale woon ba Sénégal gox yépp kilifa diine ya fa nekk dafa jaxasoog ñoom amanteeg ñoom boo ñëwee fii ci eh, Thiès góor gi Hadj Ahmed Ndiéguène ànd naa ak sëñ Abbas ba tàyyi ba ba tàyyi ñu jaar kees dégg nga jaar ci moom kon ñoom eh, buñ fi teewee kon ci eh, ci kër ci seen kër la ñu teew waaye buñ waxee alxaaji Njaase Mbay ndax bu ñu tuddee xaaji Mass ñaase Mbaye foofu foog ñu tudd Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy te Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo doon buntu Serigne Abbas Sall dégg nga ci Tiwaawan ndax sëñ Abbas sëñ Babacar Sy bi sëñ Abbas ñëwee Tiwaawan dafa woo Serigne Cheikh ni ko yow yaa njaatige Serigne Abbas bi nga xamee ni nag sëñ euh, sëñ euh, euh, Abbas dem na mu ni Serigne Cheikh xam nga lu tax man la yaay njaatige Serigne Abbas mu ni ko papa déedéet. mu ni ko yow da bëgg xam-xam te sëñ Abbas dafa bëgg xam-xam mu ni ko yow da nga bëgg Cheikh na Ahmed Tidiane te danga cee am cër sëñ Abbas it dafa bëgg Cheikh na Ahmed Tidiane te def ci am cër kon seen nekkin dana neex dégg nga waaye xoolal cene ba cene moom daanaka cofeel gi ñu am ci Serigne Abbas kon Cheikh Abdou Fattah bu fekkee da nga am eh, eh, kii bi yëg sa xarit man xam naa ci dara sëñ Alpha Seck ba mu génnee àdduna sëñ Abbas man mii la yabal ma ànd ak délégation ñuy dem Thiénaba keroog man demee Thiénaba sëñ Madické bi nga xam ne moo doon taawam wax na fa wax bu rëy gis nga euh, ki toppoon ci sëñ Alpha xam ne moo remplacé sëñ Alpha keroog xam nga ban kàddu la jël mu ni sëñ Abbas li ko yéem ci moom boo ko xoolee ci wàllu xam-xam da nga naan kii ban jot la waroon am ba mi ba mën a bind lii yëpp ci Cheikh Ahmed Tijani ban jot la waroon am ba mën a bind lii yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi sallam mu ni ban jot la waroon am ba bind ci yëpp ci tawxiid mu ni li koy yëm na ban jot la war a am it ba mën a tabax institut islamique un milliard trois cent millions lay dëkk muy génn àdduna waaye ban jot la amoon ni bay tabax ay juma ak ay jàkka jógee euh, Louga dem Ndar jóge fa dem Saalum def fa xaayira taaba dëkk yu rëy rëy dégg nga gi nga xam ne moo remplacé woon sëñ Alpha nekk xalifa keroog loolu la wax allahu akbar mooy papay sëñ as sëñ as mii sëñ abbas tam bu mosaan dem Fass day jënd ay yére yu rafet tànn ay kilifa diine fi Sénégal ay ay jàllaa bi bokk na ci ñim tànn ñim daan tànn dégg nga sëñ alfa ci la bokkoon sëñ amad njëgën eh, eh, dégg nga ci la bokkoon sëñ Chouaïbou Mbacké ci la bokkoon sëñ Abdou Aziz Dabakh dégg nga noonu la daan wër Sénégal yépp dégg nga indi leen ay yëf yu rafet yooyu kon yéen ñi fi teew ñi ñëpp da eh, eh, kii eh, góor gi Dia góor gi Dia góor Thierno Abou Dia <laughs> ah, Thierno Abou Dia Thierno Abou man dama ko xam trop ci sëñ ndar heure bu ne ñi naan nekk ci sëñ dafa gënoon féete ndaw sëñ Abbas bëgg ko lool seen nopp sëñ Abbas sax du ko nekk may soxna kon xoolal bi jataay yi fi teew bu ñu waxee Doudou Ndiaye sama xel dem ci Hadji Sada Ndiaye dégg nga di nekk magam dégg nga taxoon sëñ Abbas kon ñi fi teew nii kooku sekkara bu rëy la li ndekete daal àdduna mbir yàlla daf ko defar bu yàgg yàgg kon leen bu bu ngeen ñëwee fii da ngeen xam ne seen kër ngeen ñëw waaye di nuyu xaaji Mbay Njaay eh, dafa siiw ci mbaax xaw ma ko de mais dafa siiw ci mbaax siiw ci bëgg daara siiw ci nitu daara defal nitu daara kon ñu ngi leen ci ndokkale ci loolu te doomu aadama de lépp lu mu def xoola boo ko waxul ma ngay tasaaroo ci àddina kon nag foofu laa doon yemale rek ci sama kàddu eh, di tëjee gërëm njuga meng mi nga xam ni ñëpp gërëm nañ la ci sa kàddu yu rafet tabaarakallahu yow nag xéewal la goo xam ni yàlla moo ko jox al alxayriya kon mbokk yi xamee ni ñu ngi nekk fii yëpp waaye nag gannaaw loolu man dama am tànk ci Thiès ndax Thiès bi yàlla defee ma taxawal fi ASCAI association de soutien et de coordination des activités islamiques kii yore woon trésorier bi mi nga ne tabaarakallaahu mooy Badara Diaw ma nga ne toog waaye itamit président bi nga xam ne mooy suñu coordinateur di borom daara eh, tabaarakallaahu di Arona Ba ma nga ne moom itam bëgg naa mu xam ni jàkka ji ak daara ji dégg nga ci la bokk dégg nga waaye itam Amath Ba mii ci fondateur u aska yi la dégg nga Amath Sall ci fii ci ci ci kees hmm. kon nag Thiès biñ ñëwee eh, sëñ Muniru Njëgeen moo ñu booleeg benn doomu Abdou Salam mu ni kii laa leen jox ndax dañoo dem ci kër gu nekk kër gu nekk ku ne jox ñu kenn nii jël leen ñii ñoom ñoo composé askaay ñoom ñëpp délégation boobu ah, ah Cheikh Abdou Fattah maa ngi lay yëgal ni ñëw nañu pour ànd ak ñun ci liggéey bi ànd ak yow ci liggéey bi tabarakallahu dellu di la ñaanal Cheikh Abdou Fattah di la ñaanal yàlla yàlla dëgëral la jàppale la ci liggéey bu rëy bu mag bii di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu digal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim ya rabbana bi sirri ayni zaati wa nuuri ma laha min as-sifaati ayni al-wujudi asli kulli juudi muhammadin safiyika al-mahmudi الفاتح الخاتم والهادي إلى صراطك الناصر يا رب العلا أول من لبى نداك وعبد من حيث إلا الواحد الفرد الصمد أدعوك جاعلا وصيلتي إلى عظيم ما عندك من فضل على جاه وليك ممد الخلق أحمد كل حامد للحق خلعة نور ذاتك المطلسم وعيني وسره المكتم رحمتك المهداة للأكوان من بحر فضل واهب المنان خير وصيلتي وخير عدتي وخير ملجئي وخير عمدتي سيد كل أولية جاني منبع سر العلم والعرفان أحمد وعين حضرة الإيمان وحضرة الإسلام والإحسان عين التقى والجود عين الرحمة عين العناية وعين المنة عين المضايا والمكارم العلا عين السعادة وينبوع الإله عين الوصول عين حق المعرفة عين اليقين حقه عين الصفة وعين الأسماء وعين الذات وسرها المكنون في الزوات أكرم عابد وأثنى صاجد لله ربنا الكريم الماجد أن تلهمني شكر ما أوليت وما وهبت لي وما أسديت لما علمت ولما لم أعلم من منن لم أحصها والنعم وتغفر الذنوب عمدا أو خطأ وتكشف الحجاب عني والغطاء حتى أشاهد جلال الخالق في كل مخلوق من المخالق حتى أراعي حقوق الباري في خلقه وما لهم من جاري حتى أعامل عباد الله فيه بي لله لا كالله فصرت من رقية الأخيار عبدا لرب خالق قهار عبدا له مطارحا بين الورى غير أتى الغير ورا ورا ورا, ورا أعبده موحدا توحيدا أهل المعارف فلن أحيدا فلا أرى من ذرة في الكون إلا ولي علم بها يهديني إلى صراط ربنا الصوي ولصراط المصطفى النبي صراط شيخي أحمد الولي وارث أفضل بني الولي وكل ذا في حسنك الحصين تحت لواء نبيك الأمين وفي حبا وليك تجاني شيخ المصائخ العظيم الشاني أنا ومن ينمى إلي طينا يا ربنا ومن إلي دينا وكل من أحبني أو أحسنا إلي يوما خفية أو علنا كذا الشريف حبنا الكروازي ذو العلم والصلاح والإعزاز بلغنا الله وإياهم إلى زر المنى في الختم مركز العلا ثم صلاة ربنا الفتاح على النبي الفاتح المفتاح وآله الغر وصحبه الرضا ثم على الخاتم أكبر رضا آمين يا ربي وحاشا أن ترد كف دراعة لجودك تمد واغفر لنا كل الذنوب يا ربي واستر العيوب ويا مقلب القلوب قلب إليك خلدي رزقا حلالا واسعا علما غزيرا نافعا قلبا تقيا خاشعا فهب لنا يا سبدي عافية حسن الخطاب مني لنا كل مرام موتا كريما يا سلام على الطريق الأحمدي ووالدينا الراحمين مع الشيوخ أجمعين كذا جميع المسلمين وكل ذي تودد أجب دعاء المستقيم بخير خلقك الأمين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 kon sëñ Mouhamad Mbaye yëkkati turel bi nga joxal ma ko imam Abdallah Sall euh, sëñ Abdoul Fattah nga nga jege ndax euh, caméraman yi ñoom ñooy buñ sañoon bi xam mooy kan jege sëriñ Cheikh Ahmed moom mi nga xam ne moom it macha allah Serigne Diakhoune Fatick ak moom nga fa. Serigne Abdallah Sall mbokk yi seede leen samedi 6 novembre 2021 fii ci Nord Serigne Abdoulaye Sall Abbas yëkkati na tureel bi def na gisement tooy li koy teg ci xeer bi li ñuy a def mooy yëkkati bu njëkk bi nga xam ne nag moom mooy war a tabax jumaa ji ñu teg ko kon pose première pierre baa ngi noonu mbooloo mu takkoo takku fekke na ko ñii di ay kilifa ñii di ay doomu soxna ñii di waa daara ji waa coopérative de l'habitat des agents de l'administration de la région de Thiès ci jiital monsieur Ismaïla Soumaré ñoom itam teew nañu ñoom ñëpp macha allah ñi ngi fi kon yaakaar naa ni mbir maa ngi noonu suñu teewaay bi rafet na jëf gi rafet na ñu jox nag ni Serigne Borom ñu may ko moom it mu ci brique bi Serigne Abdoul Fattah moom it yëkkati na. macha allah wax ko léegi vice président boobu Ndiaye Khayri coordinateur des activités moom. moom itam topp na ci magam teg na li nga xam ni moom moo di. may ma ma barkeelu ci Simaat Serigne Malick Seck Serigne Serigne Thiénaba moom it di nitu daara yëkkati na kuréel ba laal nañu si yëngu tooy bi teg na ko ci xel nee na Serigne Al Seck borom ndigal yow li nga xam ne yaay président yow jeune la yow jeune la tegal tey topp ko yow du ko tuuti kenn ku nekk la ci laal waaye président coopérative nee na bi ñu damay bokk nag ci li nga xam ne mooy tegtal bi ko ba tey bu ma ne leen mën a taxaw si waaye imaam ci asal ñëw dañ ko may mu mu jege léegi biir bi dañ ci jàpp rek sëñ Abdou Fall imaam ma sëñ imaam yàlla yàlla yàlla boulangerie yëppay jàpp scolaire engrais bibliothèque ak li maa faj kon mbir bi nag la waroon bare bare bare ñu ko waaye ñu xet nañ mbir yi mbokk yi teg nañu ko sax rafet ñu ngi toll mu wax amin l'islam amatina ndam yàlla na yàgg fata jërëjëf ñëpp bëgg na آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام